jël yoo ak ziyaara boobu teg ko ci loxo sunu kilifa sunu sëriñ suñu mag El Hadji Mor Talla Sarr di mag di bàyyi ndax mag moo di bàyyi mu jot li na ko suñuy waajur Baye Khalil Sarr Baye Doudou Fatou Sow Sarr yàlla nañ fi yàgg lool ci ànd ak wér ak mboolem ahlul kaarim yëpp ak mboolem jullit yëpp naa ñu ñëw ak yéen ci yóbbalu bis bi incha allahu benn boroom xam-xam nee na yërmande sunu boroom moo waral mu wàccee weeru koor moo waral su weeru koor ñëwee mu tëj bunti safara ubbi bunti aljana tënk seytaane wàññi doole ji nga xamee ne si moom la bakkan am ci xiif ak ci mar ak itamit yeneeni bànneex weerukoor sunu borom dina wàcc ay malayka yu bari ñu fees dell ak yërmande di daagu ci biir suuf ànd ak yéen féete leen penk féete leen sow féete leen ndeyjoor féete leen càmmooñ yow jullit bi woor tëj gi boroom bi subhaanahu wa taala tëj sa bànneexu bakkan moom moo waral nga ibbi sa frigo xaal ja bari ca moom ja bari ca ndawal gi nekk ci sa wet gaa yi caameen yi nañ ma baal lépp luy bànneex nekk ci sa wet soxna si nekk ci sa wet lépp ngay borom te suñoo koo laal ana lan nga ci war a jàng bu weeru koor wi paasee kon la nga xamee ne si aw ñaaw téef la ba nga xamee ne si borom bi subhaanahu wa taala daf la koo tere ci weeru koor xamal ne itamit bu dul weeru koor lam ca daganal nekk ca te lam ca daganalul nga bay ko ba faw ana loolu ban jàngat lañ ci war a yow doomu aadama bi nga xamee ne si sunu borom wàccee na yërmande jooju malayka yi di dundal sa roo di féexal sa xol dalal sam xel yow nag xamal na yow yaa ci des ndimbalal sunu borom boobu mu la defal ci weeru koor kon mbokk mi ne nga góor góorlu ba mbooleem loo tàmmaloon sa bakkan te àndu tëg ngërëmal yàlla nga bàyyi ko fa te tàmmal sa bakkan li ànd ak ridwanullahi mbokk yi weer a ngi nii wu nuy profito waaye weer a ngi nii woo nga xam ne si tamit dañ cee war a jàngaat kan mooy sunu borom dañ cee war a màggalaat sunu borom ngalawaay bu weer wi paasee yu baax yi nu nekke woon nañ koy continuer te xam ne li yàlla baaxal bu ko ñëpp doon bonal day baax rek li yàlla bonal bu ko ñëpp doon baaxal day bon rek yàlla na nu yàlla sàmm te sàmmal na sunu njaboot yal na nu yàlla aar te musal nu ci musiba ak balaay yi wëndeelu musal ñu ci coronavirus ak bépp jàngoro yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule yàlla bu nu des bitim réew yàlla bu nu fi desle dana am mu néew mu bari yàlla na def suñuy xol ñu bokkook ñeen ko war a bokkal jaamu yàlla moo gën a jafe yàlla nañ ko yàlla yombal yombal ko bépp jullit mooy ko moo gën yomb yàlla nañ ko jafel te jafel ko bépp jullit yàlla na yàlla tàppe suñuy xol yàlla nanu yàlla bëggloo boppam te boole ñu ci ay soppeem yàlla bu yàlla xiir ñu koy benn yoon lu nu am néew mu bari yàlla na borom bi subhanahu wa taala barkeelal ndax lu barke rek moo am solo yàlla na yàlla defal nu dégg defal nu topp defal nu kenn lu jàmm hada wa billahi tawfiqi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh